njiitu réew mi ak ki mu dalal it jëf ji mu def je pense que moo waral coow li ndax bu fàttali ni moom Jibril Ngom moom moo nekkoon mandataire coalition Yewwi Askan Wi kon ca euh, investiture yooyu candidat moom ci la ñu mën dem gisuñu ko boobu ba léegi kon moom moo taxoon sax euh, waa coalition euh, Yewwi Askan Wi mujjoon a forclose fële nga xamante kon moom mooy ca Matam ñu koy war après assumé na ne finalement dafa démissionné démissionné na pare yóbbaale kayitu jàmbur ba xañ leen noonu. bokkoon ci élection yi ba finalement gisoon nañ la ca cour d'appel bu Saint-Louis daal dogal donc bu ñu toogee quelque temps après njiitu réew mi dalal ko day loo xamante ni lu doy waar la étant donné que moom jëf ji day jëf joo xamante ni du royukaay te politique même si ay adversaire ngeen mais am na yoo xamante ni mënuñ ko rafetlu surtout ay pratiques yoo xamante ni dañ koy surtout président ñi ngi toll yaa ngi wax ne cadre unitaire de l'islam depuis 2015 ba mu demee fële nga xamante ne moom mooy ca Kaffrine ne il va réduire l'opposition à plus simple expression loolu mi ngi koy jëfee boobu léegi te démocratie mënoon ko wax sans opposition te je pense que am na ci yoo xamante gis nga ndaw si nekkoon Fouta bi di xeex ñu xëy suba ñoom tamit lu nekk mu wax ko opposition bi kii tamit Jibril yamut foofu mais mi ngi attaqué ñi nga xamante mooy opposition mooy je pense que euh, kii place du palais de la République palais de justice entreprise la waroon a transit ñu daal di koy déglu parce que loolu moom mooy yoon il faut que aussi ñu joxe euh, de bons exemples surtout bu fekkente ni da nekk njiitu réew ci Macky Sall mm. Mm. parce que moom nag daf mel ni baaxul ci démocratie encore une fois mm. surtout contexte bi ñu nekk nga xamante ni dunni jóg nañ wax ju ñaaw ji fu nekk lay jóge je pense que moom mi nga xamante ni bu fekkente ni père de la nation bu war na ko wéy yenn jëf yi war nañ ko ko defee c'est quand une audience boo xamante war na ko jox ki nga xamante moom mooy Djibril Ngom parce que surtout je pense que ñi mu gën mooy ñi ànd ak moom di xeex parce que APR le premier décembre bii lay fête 13 ans am na ñoo xam ne ñi ngi APR doon rey seen bopp lu nekk ñu def ko ci parti bi moom mun mënuñu sax gis président bu fekkante ne saaga opposition wala ngay songu Sonko wala ngay kii ñu lay recevoir loolu moom mooy wa

te bi léegi léegi ñu jàll ci euh, euh, euh, leneen muy un jour au Sénégal.